sababu xaybati an laa araada an lanaala minhu jaaha wa an akuuna saafian li xawmi wa an akuuna qaadiman fi dawmi ndax li ñu fi gis kat bari na fa nu dem lool yéen ñi toog fii ñii nga xam ne ëpp ma la ci at bëriwut laneen lu ci waaye jàngit ba defe ne jàng nga woo jàng naa laneen waaw te maa lay at te bari ci ñoo xam ne sama dem demu demuñu fa it France gi yi yoon mooy sama yeenti yooni France ñëw naa fi ba tey waaye nag la sëñ Abdou Lahad waxoon te sëñ Cheikh Mbacké ca ngaram nga ba muy door a def xalifa te dem Dakaaru ma ngan nga noppee ñu fab cant ga tànn ay kilifa yu ko war a jottali sëñ Cheikh sëñ Abdou Lahad na ko yëf yi waroon mënoon na fee yées lool te da ko tee jag lool boobu bat la boobu laay delloo si yëf yi mënoon na fee yées lool te da ko tee jag lool waaw ba ma ñëwee ba fii mi la la sëñ Cheikh tontu da ko na man day waxuma la yow waaye ñi nga àndal ku ne jaral na ma def lépp li ma def kon ba tey mooy loolu rek. gannaaw bu nu leen nuyoo te jiital ci nuyoo bi nag xalifa général bi nu bàyyi Sénégal. di sëriñ Mountakha Mbacké yal na ko sa borom dolli kattan te woyofal yéen ba. baat bi mu wax ko mu lépp lu nu mën a weesu lu nu weesoon ci def lu baax lu mën a doon buñ ci amati soxla. nan mel na koy door a tàmbali tey ci liggéeyal sëriñ Touba. waaw loolu noo ngi leen ko fàttali ñëpp. te fas yéene ñun ñëpp it ñu nekk ci. te sëñ Tuubaa nangul nu ah di ñaanal itam kilifaam googee mu wuutu sama borom xare ko àjjana ndax moom def na fi li fi war def lépp waaw teg teg loxoom ci njabootu mañ sëñ Cheikh Ahmadou Lay moomee moom yi fi nekkit moo ki rakkam ak i bokkam ak i taalibe it sama borom jàppale leen te may leen fan bu gudd te yéene gaa yu baax yi yëpp ci loxoom te ñun ñëpp naan du ànd ak moom liggéey bi yéen ñii nag di yéen kuréelu ba jaajëfal maraaxib bii nag li ma fekk ngeen di ko def loola Tuubaa ga ma xëye bawuma fa lu ëpp loolu hmm, yaakaar sëñ Tuubaa ba noppi di ko liggéeyal bëggeel googu yi nga xam ne nag moom moo war jiitu ci li ñuy defal sëñ Tuubaa nag sëñ Saliou daa wax ne sëñ Tuubaa des ko war bëgg daa war jiitu lépp ba noppi bëgg gi nag da lay gënal sa bopp gënal la say bokk gënal la sa soxna gënal la say doom gënal la sa alal kon mel na ne jox ko sa lépp boo ko joxee sa lépp nag ba dara desu ci nag moom laa jox lennam te lennam a gën sa lépp kon nag noonu yi ngeen xam ne moom ngeen maase ca di ko def dimbalante ñu ngeen ci góor bu baax boole ci jaamu yàlla julli waxtu juróom di jàng alxuraan di jàpp lu jiitu loola te yéene te jàmm te mooy ni mboolem gaar-gaar yi nga xam ne day gaar doomu aadama ba ko tee ko am la mu bëgg te sëñ may jaxate da koo tënk dafa wax man xaw ma luy pexe tey man xaw ma luy solo tey ay daj na addina ji loo daw daw daw la seytaane addina bànneex ak bakkan ñi ngi nii gembul la ngay kenn ñuy mbooloo te yow yëgu la say noon a ngi yaa ngi nii boo kër këree ba ñu daw loo man di ti lu rëy rëy loola jàppandi la koo xam ne daqagali noonam nag du am mébétam ak dëgg a ngi saafaraa ngi mos ko ndax wérul seytaane moom ak bànneex ak ak bakkan ak adduna dañoo am doole lool te di gone ba noppi amum taar am doole mën a lijjanti amum xel dofoo dara dellu tey am wërsëg way defee dara sa borom mu ñer bi la teg la ci yoonu siraatal mustaqim nga xam ne loolee moo lay jëriñ adduna di la jëriñ àllaaxira ku ko yàlla defal war nga koo sant bu baax a baax ndax bari na ñuy ñaan million lool te dogu ci ti bëgg ko lool di ko wutin bu ne waaye bis bu ñu fanaane million rek bu ko defee ñu fanaane bar sax am na ñoo xam ne bis bu ñu amee million ñu si def lu dem lu jëm sawara loo xam ne mënatuñ koo tum bañ jébal bañ jégal ko am na ci ñu xam ne ñi amuñu ndey amuñu baay amuñu sëriñ amuñu najaay kenn du leen digal seen nopp dara du ci dugg lu leen lu leen neex ku leen di jëy dong muy jigéen ju bëgg baa leen di si boolu waaye ku leen di wax dëgg moom xamuñu ko ndax kenn du leen ko wax te loolu <coughs> te yooyu musiba rek la nit waxtu ci àdduna war na jaaju war na koy digal waaw te it ne wóor na lu jigul doomi sëñ Tuubaa ba doo ko ca dégg mukk jigul doomi sëñ kenn te suñ tubaa nee ne lépp lu yàlla aaya nga di ko def te xamoo dara lu mu la wàññi boo ñu sa taar boo ñu wut sa bourse boo ñu wut sa doole nee na bu mu tax boo tuddee nga nelaw de da ngaa àggagu ca bis ba taxoon di ko aaya rek waaye bis boo yendu jee sa bàmmeel bi baa nga fanaanse da nga rëcc loo doon ñëwee ci duna su doo fa gis koo ko waxale kon nag nan lu ci jaamu yàlla dala jiitu ci julli juróom gannaaw bu ñu yéeneente jàmm ba noppi te am sëriñ bu mel ne sëriñ tubaa nag mun a topp ndigalam ndax ndigalal sëñ Touba mooy ndigalal rek sëñ defar na lépp ku jiblu àgg nga sëñ bu gën a rëy sëñ ñu ngi koy rek nangam nangam maanaam di sam sëñ bu ñu wax nga wax sañ bu gën a rëy yooyu amul benn njëriñ am na njëriñ kat ca kaw nga jaar aw yoonam te fekk sëñ ba jaar yoon loolu rek lay doon sëñ Seydou daa xam ne bët dana xool lu mu bëggatu xool nopp dana dégg lu mu bëggatu dégg waaye tànk day jaar ci yoon rek koy ta a àgg ci dëkk ba mu jëm sëñ Bamba moom yi nag kenn moogu ca kenn ñëpp ci yem waaye sëñ Saliou daa wax nuñ koy bëggee da nga koy bëgg ci sa xol ba mu gën a la sa lépp. di ko waxtaanee ci wala mi ñam ba ku ko xam bëgg ko ku ko bëggoon doon ku faa bëgg. ku ko xamul woon xam ko. loolu waxtaanee sëñ Tuubaa ci murit dafa jaadu. te di ko roy. sëñ Fallu nee na lu la nit gën gën gën gën nga sañ ko roy. nee na bu ñu kenn ku dul sëñ bamba fu mu teggee tànkam nañ fa teg suñu bopp duñ ko jot waaye kuy dàq sëñ bamba yi doo ko jot waaye keneen du la jot <laughs> waaw daana wax moom mi sëñ Fallu nag sama njort rafet na lool ñu ne teg mu ne saam xel dal na ñun ko sëñ Mbàkke yooyu yaar lu ko war a waral mu ne li rafetal sama njort tey mooy toolu lislaam bi daa ceetee la dal lool te fu suma yéenee wàcc muy toolu sëñ bamba bi loolu rafetal sama njort moo dalal sama xel li rafetal sama njort nag mooy sama yéene ci bindi fi xatut ñaawut te xam naa ne benn jaam bu mucc ci yéeneem amut jaam bu ne nga yéene lañ lay delloo waaw loolu nag nan ko xam bu baax na ni yéeneente jàmm tey wattandiku njort yu ñaaw tey wattandiku xeeti bon rek li yàllay aaye ndax Sëñ Tuubaa nee na def lu baax ak bàyyi lu bon dañu nuloo waaye bokkuñu ma ne su def lu baax foo toll waaye du la tax a bàyyi lu te loolu bari na ci nit ñi de te sama bàyyi dara judd juddu yi ak jikko yi ak jëfin yi yetti jiim yooyu suñ dajale woon nit ñi liñ sañ ci gerte ñu sañ ko ci ñoom taaraar jikko yi juddu yi ak jëfin suñu noppee danga nga seen ci biir da nga seen ci biir pëpp boobu ko yii day dañ koy añaan diis nay di yàqkat di nafiq wor lekk alal jàmbur wax ak jigéen ju tëkkul naan sàngara tux jiw ñaaw njort ci nit yii jëmu joo doon raxas ba set ba ci ngir bëgg a seet ci yii dara laalu ko ci jooju jë mu day jaxee tel bu ci waaye yor ci yooyu ju mën a doon te tegoo moom doo dangaa jara koo mën a jaamatu jaamuwoo yàlla doo jam doo ne wàcca raja u jannatin bi laa taati bi sunnatin maa ngi xoloon yaati loolu la sëñ Tuba bind sëñ Tuba defar na yëpp moom dañ koo tamu noonu mu rek waaye ba mu defee la lépp itam lépp loo sëñ Tuba digg lu mu digg laa wax mën na waaye ña aw ndigalam dong nag la ko dig ña aw ndigal sëñ Tuba nag mooy ñi aw ndigalal yàlla fi mu ne mënees nañ dem Màkka di sarxe di dimbali waa hôpital di fayi bor di joxe tabaski di joxe koor di ganale aw nit di maye sa alal lu ci ne yii daal sa ko waaye yaa ngay wax ak jigéen jiw tëkkut yaa ngay lekk xaalisu jàmbur bu liwut yaa ngay jëw yaa ngay ñaaw njortu yaa ngay añaan yaa ngay diis yooyu kon yaa ngay def lu baax waaye taxulaa bàyyi lu bon te sëñ Tuba nee na yàlla li muy bëgg bëgg ko def lu baax ku bàyyi lu bon ko gënal te fi mu ne def li ma baax li muy jafe-jafe bàyyi lu bon ko gën moo ko a jafe ndax yooyu mën a wax yëpp ñu ngi koy def waaye yi wax la ko ba noppi nga seet nit koo xam ne du ca def dara amu ca dara loola jafe la lool loolu nag nañ ci góorgóorlu ci suñu bakkan bu baax a baax te na ci ñoo xam ne kat xëy bu ma sëriñ kenn ndax man sëriñ si sant bokk lañ ku ci sant Mbàkke am na lu ma doon ci yow ku ci santul Mbàkke it am na lu ma lu nu seq di taalibe kon sëriñ sëpp sant bokk nañ waaye am na ci ñoo xam ne ñañ ne aslamtu nafsi keroog mañ ci jibaloo léegi dégg guñ ci seenu lammi ne leen yàlla ne bàyyi yonent ah loole nag moom sëñ ba bu ko dul wax itam loola saa yoon néew ji waaye yow taalibe bi war ngaa wuti ku ko ku la koy wax moom waaw ku lay dellu si yoon bi ba wàcce mu xam ne wàcce nga waaw loolu daal laa ci doon wax nan góorgóorlu ci jàmm yàlla boole sunu bopp wàcc xeeti po yëpp nu génne ci suñu bakkan ndax adduna dafa gàtt lool sëñ Tuubaa dafa nag adduna neexul yëgut ñu ne tek mu ne sa jàmm du ji mujj ndax gannaaw dee nga ñëw rek te xamoo kañ la loolu duutu jàmm nee na démb nag wii na loolu sëñ Tuubaa wax ko ak Mbàkke mu a ëllëg dikkagut leesal yoon nekkatu ca ndax amatoo ca dara dem na loo ci amul woon amatoo ko te nun ñii daje fii tey jii na ngeen si biig leen gënoon a sori dee te ji leen ko gën a jege te suba leen koy gën a jege nee na démb nag wii na te duutu dilti sa yoon nekkatu ca ëllëg dikkagut xamoo da nga ko fekkam dir sa yoon nekkagu ca léegi sa yoon nekkatu ca lé lii sa yoon nekkagu ca kon tey rek nga am adduna jëpp benn bis la ku ci xëyeete daal na nga fas yéene ba jant fenkee lépp lu naqari yàlla ci digg gis ak njort lu mën a doon boo ko jegee rek lépp loo xam ne lu neex yàlla la te nga xam ko na nga ca def sa kàttan la nga ca mënul lépp nga yéene ko la yàlla ay nag boo ko jegee ci genn wet waaw loolu daal su nu ko defee boole ko lii ngeen di jàng ci alxuraan di ko jàng ci xasaay di ko yi ngeen nekkal ci adduna sama borom dimbali leen sutura leen ña ca des dawlu leen it nga xam ne yéen a nga leen di fekk balaa yàgg. sama borom jéggal leen yooyu liggéey léeg na rëy wax la kenn xam lu toll. te def ak jal bu ci xasaay yi la fa Sëñ Tuubaa def. Paris gii tey jii ak France gépp suñu xamoon yéen ñii kuréel bii képp waxuma nag beneen def ci waxuma beneen daayira li ci wax dara loolu sax yow ñëw ci waaye li ma gis ngeen di ko def fii yor la adduna bépp fii bu fi ba bal tekkut yéen a yéen rek kat te fetal yi tàkk fi yàgg te sëñ mu Ka nee na sëñ Touba yaa nu jukkee na baagub teen te mbas ma dégg nga boo baat mm-hmm. yaa nu jukkee ne baagub teen ca mbas ma mm-hmm. yaa tee Touba bii def nu ay sandarma yaa tax ba yàlla buur ba faf yërëm nu yaa tee maroog ya waaf ci doj fetal nu mm-hmm. yooyu yëpp nag mi ko acci xasaay di waaw mas naa fekk ku jàng xasaayit ba noppi di ñaan sañ bi ne ko déglu ko maa mu ne ko ku daaloo bi ma ko ma ko looloon wax mu ne tekki ñi muy tubaab wax sëñ bi mi ngi mel ne ko yorub dërëm li fekk yorub junni ba na fekk ba doon la nga naan ko naan ndax xasaayit li ma ca fas yow xamoo ko lañ ma ca mayit xamoo ko daa mel ne nag da koy delloo borom tey ñaan na neen lu néew la gën a néew waaw la ci foo fekk ñu bind fa ak de mam sawara loolaa waral lu mën a nangu lii ñuy wax loolu nag yàlla na ci a musal daana wax na fu ngeen toogee te seen xel nañ ci man na ngeen naase ci sant yàlla ñun ko alhamdulilah balla si mun xam ngeen lu ko waral ñun ko dee den mun sa am xel ku mu dëjut sama xel du ma daj koo gis am xelam dem ci man ba mu ko yëgee ba mu ko yëgul sama xel jógee ci moom <laughs> kon nag li ngeen koy tudd ba noppi wañaat ko di jàng xasaay yooyu itam yii li ngeen koy defal néew ma kenn defalu ko ko waaye kenn defalul Sëñ Tuubaa lu ëpp loolu alhamdulilah te sama baay daana wax sëñ Bamba du ma ko wutal lu mu mënut xaw ma ko it waaye daal lu mu mën a mën fayal la ca dàqale fayal la ca dàqale waaw bu leen fayee da ngeen mhm. yi nga xam ne nag sëñ Fallou waxoon na ne milliards yaa ngi ñëw te du dellu gannaaw te it ba mu koy wax booba million sax kenn ñu ko tudd million yi dikk na fi milliards yi ñëw na te du dellu gannaaw dikk na waccal bi jaay talaami sa suyoo xanaa ma si xëyoon a waccal loolu soo waaye ñaana borom milliards yi du jeex waaye nañ ko jox dong yi nag sëriñ si nañ jaamu ji yàlla dong yi ñoom féeteeg sëriñ si di leen dimbali am na si ñun nag bu boobaa ko nangu sax xëy na waaye nag ngeen xam ne daal lu ci waaye ma a yor moo la ko jox na ko mën a fi sa dong yi la ko laajal la kenn mënu ko caa fay <laughs> waaw kon nag noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di sant ngeen góorgóorlu ci loolu mm-hmm. tey di fonk gan ñi nga xam ñi ngi fi ñëw tey bàyyi ko tu Tuubaa ma Tuubaa damaa mas a dégg sëñ Modou Moussa Dieng ne waa Italie dama bëgg a waxtaan ak yéen da ngeen a jàmbaare lool waaye yaare nga yaare ndog rek ngeen mu njëkk moom mooy booy booy liggéey fas naa maa ngi fas yéene eh, ajali góor gaak damaa fas yéene ajale soxna saak damaa fas yéene àggale sama kër gaak yooyu na ngeen ko wattandiku sëñ Tuubaa bi yóbbal la te yóbbal lu des gannaaw maa ngi fas yéene liggéeyal Seex Ahmadou Bamba la a ajjuyee xaj loolu ngay wax te muy dëgg loolee bu dikkee la nga ca bëgg lépp da ca am waaye fekk na sëñ Tuubaa nga jiital te mooy dëgg waaye boo ko dee mujj nag tam di ko dégg la lay bàyyi ya nga jiital ba noppi te yooyu du la mën a dara ñaareel ba itam gan ñi bàyyi ko te ma di fi ñëw buñ leen sonal gan mu ne wërsëgam lay jiite ku dox ba agsi fi yéen te ngeen man koo teral te leen leen fu ngeen jëmbi sëñ Tuubaa waaye bu mu leen nag bu leen leen bëcc ngeen itam nag ndax sëñ Tuubaa daa bokk yi nañ ma oto ñu ne teg mu ne mbokk nit rek laa ci luy naqari nit ci mbokk mi dafay naqari sama bokk na ngeen moytu sama bokk yi wax na ko dafa ko waxee sëñ Moussa Ka da ko wax ne ko ndax sañ naa ko wax ci wolof sëñ bi ne ko leeral ko wolof ci wolof lañ koy déggee mu ne Bamba ak bokkam yi nañ leen wormaal te fonk leen def leen bàyyi bu kenn laal Cheikh Bamba saa xiir say niroog melaw nit baatin bi làmboo yàlla ay def leen nit lu waaye fexeel bokki Serigne Touba yii bu dem safaan nga sol ko def abbaay ku sant Mbakke loo ko yéene ci ay Seex Bamba delloo la ko duy ci kum xëy ku ngeen ci gis na ngeen ko jàppe baayam jaan yu ndaw yu mag jakat furaayam ku wet di gis lool ba jox ko baaroom boo ko lugul moccoo ko gës ab xabroom koy dox ba wax na jaan du doon baay ba doxal ba joggi geen ba bàyyi baat ba jaan ju jigéen ak jaan ju góor dangar ya ndax lugu kër xàmme na leen ca jat ya lu mu ca doon boo ko lugul mu ray la ko yëpp jigéen ñi bamba sax doo am yàlla dégg ngeen loolu baax dénkaane sëñ Modou Moussa bi nga xam ne sëñ Bay Jaxate ko dénkaan ba mu sañcee tindoo di 1913 dajale fi doomi soxna yëpp ñu mën a jàngit mu gënoon leen sant leen ba nga xam ne leen sëñ Bay Jaxate naa bëgg naa bokk ci ay leen ab dénk boo xam ne nii ci la ñuy a jàpp ba xam fi ñuy teg seen tànk te sëñ Modou Moussa mooy xalifa sëñ Touba waaye ku amul xalifa nga xam ne ci kilifa yëpp seen doom ña nga fa sëñ Modou sëñ ba jaxate daa wax ne ma jóg defal gaa yi tindoo di béy di rafet ndax seen i xol sedd seen i itte yëkkatiku yittee di ko mu murit mboole murit bu ko am sangam gërëm ko la may wut lépp jàppandi ko wut leen ni yitte yu rëy sakku yu ngërëm fexeelam te soppi Cheikh Moustapha toppi ñu waxam te jàpp waaw waaye dab leen a dem ngërëmam tey sakku fawu wu mbégam te lépp lëf lu muy bañ daw leen a daw sori ko mat na sëriñ yéen itam mat nee ni taalibe nag te yeesu tuub ak ñu jébbal ak ak bàyyi ko jëm leen a jëm ca kanam mboolem lu dee mi wet ci jëm kanam la ko dee fee làq sikkuma ko kem lu mu jëm kanam gën faa jegeb sëriñam gën faa defab xaritam yow sab sëriñ jege ko jegeb sëriñ bokkul a fu mu toll gis la fa kat ngay xool ak ay déglu waxtaanam te santu la ko jegeb sëriñ moo de yow daal toppatool ndigalam te lépp loo xam ne bëggul loola yéen nga ba ko sëriñ ka aw ndigalam moo nekk cay wanagam ne ca xolam ab sëriñ kuy mooy ndigal sëfu ko donte yaa nga ca manding te xaw yi ndigalam yëgal na yéen a ngi sa riisoo yàlla seere na ko ñu ngeen di def rek te ji sëñ Bamba sori wu leen jege ndax yéen a nga ca la mbëgg mhm. donte yaa nga ca manding manding mooy lu sori mhm. tey aw ndigalam yëgal na yéen a ngay riisoo yàlla seere na ko donte yaa nga fa poojam tey mooy ndigalam seenu diggante yi fa sut ndar lee ko bon mooy mhm. loolu mat naa xam bu baax sëñ bay jaxate am na waneen way woo xam ne war nañ cee tiit waaw waaw war nañ cee dégg def na gàcc yee ngi gàcc yee ngi nii kenn ku ci génne sa bopp na yaa ko ci génne yaa xam sa digga sëñ waaye sëñ bay daal loolu la na gàcc yee ngi gàcc yee ngi nii mbooloo mu toll nii te kenn du ci murit bam lee tax rek kenn safu ko dégga loolu murit gi dañ ko wax laay du dëgg gàccee ngi gàccee ngi nii mbooloo mu tol nii te kenn du ci murit bàmbalee tax rekk kenn sëfu ko ngir gis ko nangoo defu jaamam ba mel na ka dee mu def la muy jëf ba def la sal ci biiram tënu ko loolu tënu sëñ Tuubaa kon nag war na noo seetaat suñu bopp te am na dénkaane bu mu wax nag boo wax ne dégguma benn sëñ wax ko te wax na ko soogay def te bàyyi na la fii ci mi ngi ngi ci erreur bruit boobu ñun ñëpp it ci leneen wax na maam Thierno bi mu bëgg a dem na ko Thierno de maa ngi bëgg a tukki tukki boobu naa ci yàgg lool te bu ëllëgee dinaa naqaree gis lool. sama yoon wii ne gis naa ci mbooloo mu ci dugg moo xam ne da cee bokkut xam ngeen maama ah, ñu ne ko déedéet balaa sa mu ne mbooloo mu daje fi barab bana meneen mbooloo dagge ca lu gàtt bi te ñëpp di ma tuddoo te génn wàll gépp ay naafeq lañu ñooñu nag topp naa leen di leen topp ak seen mbooloo moom fa mu tàmbalee ba fa mu ñëpp sawara la ñuy metti na ma lool sama borom moos romb na biir yóbbu yóbbu bi yaar jëm ci mbooloo mi te loolu laa doon bañ. fi jébbalu see am na lu ma leen digaloon nee naa leen. lu ci waay mën di liggéey bu liggéey ba noppee la ca yàlla tudde asaka seet leen ña nga xam ne ñoo leen di jiite ñu seeni yilimaan ñu wax leen ko génne asaka ja te jox ko ña ko yeyoo su ko noppee nag addi yaa ca des a addi ji ma leen di laaj nag man doyuma ko dara du ma ko lekk du ma ko naan man lu ma waay jox loolu alxuraan tegal fi suuf laa lay wax waaye nit alal da ko jege daf jege xolu borom ma bëgg nag lool lii leen gën a jege nga xam ne moo leen gën a tax nelawatul leen lekkatul leen naanatul leen ngir bëgg alal alal jooju da ngeen ci am ngeen di ko delloo yàlla te di ko jaarale ci sama loxo man de lu ci waaye jaarale ci sama loxo dama la koy dencal ba du yàqu dolli la ko ba du jeex ma delloo la addiye jum mën a doon ba ko borom yéegi ba mu ko jóg juróom-ñaari fukki jëf man kàddu naa ko ñëw naa bu njëkk ba bu narul woon a gudd fan ci moo koy may fan bu gudd fukk ba ca des bu narul woon a jaboot moo koy tax a jaboot fukk ba ca des bu narul am wërsëg moo koy may wërsëg ñeen fukki yi nag du ci jot laloo ndey jooram ci biir bàmmeel borom loolaa waroon man bëgg ngeen sonn ci addiya yi waaye ma du lu may jëriñoo waaye ceernu mun ko mbakke ma ne ko gis naa ci taalibe yooyu ñi la ñuy ci addiya ak la ca des buñ doon sarxe ngir yàlla duñ joxe lu yées loola te loola yëg naa ko lu ci waaye di joxe rek ba nga koy joxe ak la ca lépp yëg naa ko waaye Thierno loola métti ma xam nga lu ma ko déedéet balaa sa na ko ku ci gis jigéen joo bëgg mu jaral lu lëpp loola dégg nga loolu nag loolu nag ñun ñëpp kenn ku ne war ngaa xasee ba xam yaa fi indi kenn ku am nga lu ëpp loola te mënoo koo joxe te mën nga ko ci jigéen danaa dem nag ba bàyyi leen ak jigéen yi lu tax loolu lu tax sëriñ si duñ ko wax taalibe yi ñu dégg ko mat mat naa wax de seen doom yu góor yi ku ci amati doom yu góor na ma ko tudde te tudde ko sans ay doom ak sans ay rok te bàyyi seen bokki bopp yi ngeen di tudde ay doom bii sa lis bal fa suuxu bada limaan yàllaa ko ci alxuraan dée leen nga tudde doom ndax man tudd doom ak tudd dëkk ak tudd téere sans borom ko tànnal te yéen a taxoon ma bàyyi leen seen bokki yi ngeen di tudde ay doom ne ay séréer loolu sëñ bi ko wax de ku ci amati doom it bu di ju góor bu amee yetti at jox ma ko ma defal la lu benn bàyyi mënul ci doom doom joo seen muy waaxoy man mën naa ci lu bàyyi ba mën daaray tërbiya tarxiya tasbiya Abdul Xaadir Jilaani junne ji la ko sunu borom jaaraloon si Muhammad sallallahu jox leen ko. dafa dem ba far ngay kenn du doo man mii lañ ko joxalaat ne ma dekkalaat ko. te Mbakke Kajoor la Jibril fekk ma foofee ne ma sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga yeesal daaray tërbiya tarxiya tasbiya ma bëgg nag ku amati doom na jaar ci daaray tërbiya doonte ñetti fan. keroog ba ko santaane ba mu ne yéen ñëpp ku ci ne. xam naa doom ji war a am ci àdduna xam naa sa ndigg yi yaata dooma ci ne xam naa so xolit loolee baa ko waxee ndax da ko def doo ko def te genn wàll gi li ma bëggoon duñ ko def yëg naa ko waaye du tee kama ko sant moom lam ca bëgg loola dana am loola ku ci sa doom nekkul ci daara tarbiya yaa xam waaye moom loolu la wax te sëñ Mourou Moussa tarbiya ne def na jëwriñ sëñ Fallou def na jëwriñ sëñ Omar Mbacke def na jëwriñ sëñ Massamba def na jëwriñ sëñ Manou Mbaye def na jëwriñ Cheikh Ibrahima Fall def na jëwriñ Cheikh Ibrahima Sarr Issa Diène ku ne def nga jëwriñ ci kër sëñ Touba waaw sëñ Massamba meeg sama baay ak sëñ Manou Sa ak sëñ Fallou ñoom ñeent ñoo bokkoon jenn daara man mi maa ngi lal boo xam ne sax jël wax waaye ñoom daal juróom ñeenti at bokk nañ ko benn lal waaw ah, kenn ku ne ci ñeet ñooy ma la bindal nga sëñ Tuubaa ñeent fukki kaamil yi manqué ñaar waaw sëñ Moussa Ka nee na sëriñ Omar Mbacke sëriñ Massamba ñu ne teg mun a fograas yu baax yooyu ñooy dëkk ak Cheikh Bamba billaahi gis naa fu sëriñ bi bindan wax na Omar Massamba ñooy dëkk ak man seeni njëmbat dégg na bu yàgg a yàgg jékki wu leen ba tey di door a regg yéen a sotoo ko ki sotoo ci maaram am ngeen sa diiti gër mi am yu yaaram waaye buur yàlla moo leen def boroomi dara jaat yoo xam ne lu yàqu ñoo koy defaraat baax ngeen bu yàgg yéen ba dara amagul niroo leen ak ñi kenn kenn xamagul wéetal nañu lislaami sëñ Tuubaa ji kenn yu rëy lañu ci mbaarum waa ji ah sëñ Omar moomee nag na mën a def ma jur te bàyyi ma topp ci bàyyi bi sëñ Touba Mor Anta Sali mooy jur sëñ Touba sëñ Mbàkke Kajoor topp ci Mor Anta Sali mooy jur sëñ Omar Mbàkke Kajoor sëñ Omar Mbàkke ak sëñ Bourou Moussa seen i ndey bokk ndey bu sëñ Omar ak ndey sëñ Bassirou bokk bàyyi ndey sëñ Omar ak ndey sëñ Bourou Bala bokk bàyyi ndey bokk ndey bàyyi bàyyi bi sëñ Touba mooy mag bàyyi sëñ Omar Mbàkke topp ci ndey sëñ Mbàkke Moussa topp ci kooku sëñ Omar Mbàkke te nee ci juróomi at la ma sama jox sëñ Touba fii ñu denc sëñ Tuba sëñ Tuba ci digg néegam lañ ko denc nee na keroog ba ñu may wax sama baay takkal ma fasu naaru góor boolu ma sama takkaay yaay ak fasu naaru góor ak sama mbayum baay di ma jibal sëñ Bamba nii bii ñu denc sëñ Tuba nee laa ko fekk nii ba am naa ci am fukki weer ak yaar mu soog maa dalal baa si mii maa ngi sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou ci digg gi ci kër sëñ Fallou mais jàngal nañu yetti at nday sëñ bi si ñëw ci kër ba muy dem ci géej gi ñu joxoon sëñ daam Abdourahmane ba mu dikkee fekk na ñu tàmbali bind suñuy kamil hmm. diir bi nekk moom bindal nañ ko kenn ku ne ñeent fukki kamil yi manqué ñaar téere ba ñuy doonante nga xam ne moom dong la noonu ku bokk ci Mambala yaa ko yor Mambala moo jur bàyyi sëñ Touba moo jur bàyyi sëñ Omar Mbacké gën a kon ñaari doom yu góor yooyu la moom Anta Sall yooyu doon doonu téere ba mu fi jógee ba mu fi jógee sëñ Mbacké Kajoor moom mi jur sëñ Omar Mbacké sama baay doonu téere kër bi fi suñu bàkki Kajoor jóge ñaari téere eh, bi kon ñoom ñaara ko war a moom faatu nañu seeni doomee la fee Maamoor Jaara ci mag ñu jox ko ba Maamoor Jaara nag wàccee sëñ Tuubaa ci mag jox ko sëñ Tuubaa jàngale kaamil bi junni yoon si nii ba sëñ Tuubaa wàccee maam Ceerno ci mag kër ba fi maam Ceerno ba mu fi laataa jóge sëñ Gaawaan dafay jóge sëñ Masamba jóge ñoo fi ji ñu jëkkale maam Ceerno kër ba maam Ceerno nee na sama baay lañ téere bi am na Mbàkke Kajoor gi ma dëkk juróom-ñaar fukki at ak yant leen ko moom kenn moomu ko sëñ Abibu mi nga xam ne mooy rakk sama baay te jàngal sëñ Abdou Lahad ak sëñ Saliou ak sëñ Souhaï boog doomi sëñ Touba yëpp moo leen jàngal te mooy rakk sama baay nekkoon ilimaani Touba moo mujj yor téere yi daaw jéeg ba mu nelawee ñu jox ko Abdou Xafooru Mamor Diarra ba Abdou Xafooru nelawee ñu delloo si téere bi Mbàkke Kajoor jox ko Abdou Xulóos mi ma bokkal benn baay te bokk sëñ Mbàkke Madina Jeenday Abdou Khoudoss nelaw na daaw tey Abbas ne di xalifa maam Thierno lañ ko doon daaw. bu war a agsi ci man it bu ma fi bàyyi <laughs> kon kon li ma leen di wax dama leen ko a wax du naan génn góor seen njaaree mag ñeen yooyu man yooyu du ko nettali lu lu wér lay doon mm-hmm. kenn ku ñu ne sëriñ ba nga ne aslamtu nafsi su toogoon ma toog te ji mu déglu ma te la ma ko wax dana ko gëm mm-hmm. sëñ mën taxaa bako dem waxtaan mu sànn téléphone bi ñu ñu téew mu ne ma maa ngi lay ñaan ci dara ji yónnante barke sëñ Tuubaa ku sant Mbacke yal na ko mujj gannaaw ma ko kon dinaa fi yéen waaw waaw. sëñ Saliou mii wow ci Congo la yem sëñ ko yar dara nee na ma fukki at am naa ko sa loxol bàyyi ma ak sëñ Abdoulaye sëñ Abdou Samata sëñ Samata sa nu yoroon sëñ Touba roon waaw waaye boo ko mosaa ji mu ne lan lan sëñ Cheikh ñu def tiir tiir tiir tiir ma taxaw rek buñ laalee ma dégg taxaw ma ne ko lal yi dama ci yaar mu lu tax man ko ah ma sëñ bi man xanaa daa jàppal ma ma taalibe xanaa lu ma bëgg bëgg àdduna fu ma dem ñu laalal ma ngay jëm sëñ Bamba ngay sëñ Bamba ma dikk ñu dima laalal ma jaar ci lant yi loolu fu ma koy teg kon ma lant yi nag ko moom sama ay ko moom waaw te moom ci yaru noonu moo la jur maay maa ko gën a xam am naa ci loxoom ci fukki an ci ndigal sëñ na nga wóor na nag ñaa nga mu neex neex de sama ko di Tuubaa de ma xam nga comme léegi léegi nag tal lant yi moo ko moom bu ma ci jël man ko tuur naa bàlle ma ah, ma na ko lool ma raam njëkk jox la mu daal ma ne ma ah, bala noo ñu waxtaan ñaari baat bi wax ma ñaari kaddu yooyu sa bàyyee ko wax te jóge ci Sëñ Tuubaa man ko foo bëgg gànnaaram jolof am mbakki kajooram jaarim du darul manaan am daaraalimul xabiir am jaarim gu mu foo mu ne rek mokkal naa fa loo xam ne mook alxuraan te lu ma la ne génn góor nee na lu wér laa lay wax sëñ kenn nit mënu ci jënd gën na bar foo bëgg nag mën laa la ko ma ne sëñ Omar Mbacké de nee na moom ma mm. sëñ Bamba nee na moom dal yuuxu yuuxu du ko ci déglu su ma dikkee ne ko ay nita lay nuyu kat waaye dañuy jaar fa man ngir defe ne bu ma ñëwee daañu mën a agsi yow balaay sa ma bëggoon faa diis leen bi di yomb na ne ma doon daal diis na ànd na waxtaanoo ah waxtaan bi kañ la yàgg. waaw la yàgg de. su ma ne nekkoon <laughs> ko kon maa ngi dem te daal leen di ñëw ne mbooloo mi ñëpp ne balay si. mbooloo mi ñu ne balay sa balay sa. mu ne na ñëpp ju ku nuyoo ku nuyoo gudd. na ñëpp ju bu ngeen ma sëñ Thierno mii ñu ne tekk mu ne ba ca waataam ya. waataam ya nag mel na du benn. te man benn booba genn waxtu laay wax te ataa sax dañ ma ko waabal te tey oto téeméeri million na ko waaw ay du benn waaw kon wata yooyee ma ñu ñëpp jug gunge ma sëñ Thierno ba ca wataa bi ne tekk mu ne maa foo na ma ko ñëpp gunge baara dem na ma bàyyi nga ca lu mu daa def de ma ne ko lu mu doon mu de wax na ma ko loolu dama ko wax na xam ne boobu at kon nag ah yii ne daf daal li ma fi gis neex na wax fépp moom laa gis Touba moom laa gis fu sëñ Touba moom ne daal ña fa nekk aw ci ndigal sëñ Touba daal lii ngeen di nekk rek ci lañ ne dara luñ leen di dolli dal xawma ko lu weesu gërëm leen ak sant leen sans borom leen ci am ndox musal leen ci ay seytaane musal leen ci lépp luy lore te yiiri leen sàmm leen te milliards yooyu yi nga xam ko ngir liggéeyal si Sëñ Tuubaa ci leen loolu daal laa doon wax gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp waaw taakaar suñu xol seet na ko itam waaw rek la sababu Allah araada an وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون قادما في الدور